yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fanweereelu njàngale mi ak juróom benn yeesu tàmbali na liggéeyam nanu bamtu nettali yu weesu benn lu tax seytaane fiir yeesu ndaxte seytaane bëggoon na daan yeesu ni mu daane woon aadama bëggoon na itam yéesu màggal ko bi aadama ak awa bàkkaare la seen kóllëre ak yàlla tas yéesu ñëw na ngir fasaat kóllëre ci diggante nit ñi ak yàlla kon seytaane bëggoon na nax yéesu ba mu bàkkaar ñaar lu tax yéesu santul doj yi ñu doon mburu ak li mu xiif yépp ndaxte bëggul daanu ci fiiru seytaane ñett ndax seytaane xam na kàddu yàlla waaw seytaane xam na kàddu yàlla ñeent ndax dina leen jëfandikoo waaw waaye dafa leen di soppi ngir nax nit ñi ba duñu mucc juróom xel dafay dund biir di dund waaye ban moo ci ëpp solo dunde kàddu yàlla moo ëpp solo ci nit ki mbind mu sell mi nee na ci luk saar ñeent aaya fukk ak benn ba aaya ñaar fukk benn yeesu dem nasaret fa mu yaroo te ca bésu naflaay ba mu dugg ca jàngu ba ni mu ko daan defee noonu mu taxaw ngir jàngu mbooloo mi ñu jox ko téereb yonent yàlla esayi bi mu ko ubbee mu gis bërëb ba ñu bind aaya yi xelum borom baa ngi ci man ndaxte moo ma tànn ngir ma yëgal néew doole yi bu baax bi dafa maa yónni ngir mu yëgal jaam ñi ne dinañu leen goreel yëgal gumba yi ne dinañu gis te jot ñi ñu noot te yëgle atum yiw mi jóge ci borom bi bi mu jàngee aaya yooyu ba noppi mu ub téere bi delloo ko ki koy denc toog ñëpp ñu nekkoon ca jàngu ba dégg koy bët noonu mu daldi ne tey loolu mbind mi wax mat na bi ngeen koy déglu bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi yéesu tàmbali na liggéeyam nettali bi mu ngi aju ci bi yéesu di tàmbali liggéeyam yaxya waare na ngir nit ñi mën a waaj ñëw yéesu musalkat bi mu am ñu nangu ba tuub seeni bàkkaar xamoon nañu ne soxla nañu ab musalkat bu leen di tax a ci mbëgalu atteb yàlla waaye ña ca des ñu mel ni pharisiens yi te ñu nekkoon ay njiit ci diine ji gëmuñu woon gëmoon nañu ne dinañu mucc ndaxte Ibrahima mooy seen maam foogoon nañu itam ne ñu ngi topp ndigali yàlla yi te loolu dina leen musal ca jamono jooja Hérode mi yilifoon Galilée tëj na Yaxya kaso ndaxi waareem ganaaw ga ñu boom yaxya dagg boppam gannaaw bi ñu tëjee yaxya kaso la yeesu tàmbalee waare ci jàngu yi booba amoon na fanweeri at muy waar nit ñi naan leen ñu tub seeni bakaar te nangu xebaar yi mu jële ci yàlla yéesu dellu nasaret fa mu yaroo bésu noflaay ñëw di bés bi sell ci yawut yi mu dem ca jàngu ba mu taxaw jàng li yonent yàlla Isaayi wax ci mbind mu sell mi xelum borom baa ngi ci man ndaxte moom ma tànn ngir ma yëgal néew doole yi xabaar bu baax bi dafa maa yónni ngir ma yëgal jaam ñi ne dinañu leen goreel yëgal gumba yi ne dinañu gis te jot ñi ñu noot tey yëgle atum yiw mi jóge ci borom bi ba mu noppee mu ne mbooloo mi tey jii mbind mi mat na nit ñi jaaxle ci wax jooju ndaxte yeesu ci seen kanam la màgge yéesu xam seen xalaat ne leen sa waa dëkk duñu nangu mukk ne yonent nga ñu mer ci wax ji dàq yéesu génnee ko dëkk ba beneen bés yéesu doon jàngal mbooloo mi ci tefes gi ci géeju galile foofu xat ba yéesu mujj dugg ca genn gaal bi mu waree ba noppi mu wax boroom gaal gi simoŋ Pierre mu joow te sànni mbaalam Simon ne ko jot nañu dugg ci ndox mi lu yàgg lool waaye jàppuñu benn jën waaye ñu def li leen yéesu wax daldi jàpp jën yu baree bare ba mbaal yi tàmbalee dog ñu woo seeni àndandoo ca geneen gaal ga noonu ñu feesal ñaari gaal yépp ak jën bi simoŋ gisee jën yi mu jaaxle ne yéesu danduma borom bi ndaxte bàkkaarkat laa gannaaw loolu yéesu ne leen ñëw leen topp ci man ma def leen nappkati nit noonu Simon Pierre ak rakam André ak seen àndandoo yi saak ak yowanna bay seen liggéey topp yéesu yéesu woo yeneen di góor niki ñoom Simon ba ñu mat fukk ak ñaar ñuy ay ndawam ndaw ya ay nit kese lañu woon yéesu seetul woon ca seen daraja waaye seen ngëm ga ñu am ba topp ko ñu ànd ak yeesu te mu jàngal leen ba noppi yónni leen ngir ñu dem waare ji fukki ndaw yi ak ñaar ñu ngi tudd simon mi yeesu tuddee pierre ak andré mi bokk ak pierre ndey ak baay sak ak yowanna philippe ak barthélemy màcc ak toma saak doomu alfe ak simon mi bokk ci mbooloo ma ñu tuddee ñi farlu ci moom seen réew yuda doomu saak ak yuda iskariyo mi mujj wor yéesu di tukki ci biir réew galile ak ay taalibeem muy jàngale ak di faj jarag yi ñu indi ci moom ñi rab jàpp mu di leen faj ñoom itam mbooloo mu mag di ko fépp fu muy dem nit ñi jaaxlee ci njàngaleem ndax sañ bi mu amoon wute woon na ak bu jàngalekat yi yoon wi fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn lu tax pharisien yi gëmoon ne soxlawuñu tuub nanguwuñu woon ne bàkkaarkat lañu yaakaaroon nañu ne ndegam Ibrahima mooy seen maam te ñu ngi topp fukki ndigal yàlla yi dinañu mucc ñaar ndax am na rek kenn ku mën a topp fukki ndigal yàlla yi bés bu nekk déedéet ñet ndax farisiyen yi ak yawut ya ca des ñu woon bàkkaarkat axa kay ñeent lan la yeesu jàngal nit ñi wax na nit ñi ñu tuub te nangu kàddug yàlla ngir mucc juróom lan la yeesu wax jukki ko ci mbind mu sell mi ci jàngu ba xelum borom baa ngi ci man ndaxte moo ma tànn ngir ma yëgal néew dooleyi yi xabaar bu baax bi dafa maa yónni ngir ma yëgal jaam ñi ne dinañu leen goreel yëgal gumba yi ne dinañu gis te jot ñi ñu noot te yëgle atum yiw mi jóge ci borom bi ba mu noppee mu ne mbooloo mi tey ji mbind mi mat na juróom lu tax nit ñi bi yéesu waxee loolu xam nañu ne yéesu daf leen mooy almasi bi juróom-ñaar bi yeesu noppee jàngal nit ña ca gaal ga lan la wax simon mu def ko yéesu dafa ne simon ñu delluwaat ci dex gi te sànniwaat seeni mbaal juróom-ñett naka la simon ak ay àndandoom jàppe jën yu bare yéesu def na jën ya dugg ca mbaal ya juróom-ñeent bi simon gisee jën yu bare yooyu yëpp lan ngeen xalaat ne moo tax mu ne danduma borom bi ndaxte bàkkaarkat laa xamoon na ne yéesu dafa jub te sell te moom bàkkaarkat la fuk lu ngeen yaakaar ne loolu la yéesu wax bi mu ne ñëw leen topp ci man ma def leen nappkati nit dafa leen bëgg a wax ne dinañu ko dimbali mu yëgle xabaar bu baax bi fukk ak benn lu tax Simon ak yeneen taalibe ya bay seen liggéey topp yéesu ndaxte gisoon nañu ne yéesu ci yàlla la jóge te itam nangu woon nañu ko topp te mu jàngal leen fukk ak ñaar lu tax nit ñi jaaxle woon ci Yeesu ndaxte yéesu doon na jàngale ak sañ te doon na faj jarag yi ak di dàq rab yi yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla lu mu diggee def ko yàlla yónni na yaxya ngir mu waajal ñëw sët bi mu diggee ni mu ko waxe woon yàlla yónni na yeesu sët bi mu digee ni mu ko waxee woon yàlla xam na lépp yéesu xamoon na li nit ñi doon xalaat ganaaw bi mu jàngee mbind mi yéesu xamoon na li nekk ci xolu ñi mu woo ngir ñu doon ay ndawam yàlla mooy boroom doole yéesu def na jën ya dugg ca mbaal ya yeesu faj na jarag yi ak ñi rab jàpp beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yeesu fajee ay nit